ci région de Thiès maay secrétaire général de l'association des retraités du Sénégal affiliée à l'IPRES muy ARS bon euh, ñun mouvement bi nga xam ne moo tax ñu ñëw tey di waxtaan fii ci Thiès Mamadou Diagne Simbé moo ko sookee mais bi mu koy sooke fekk na ñun am na lu ñu ci doxoon lu jiitu lii wax naa ko fii ci sama nasaraan yàlla ci boppam nee na boo ko nekkalee mu nekkal la ñun ay mag lañu te mag diggante moom ak bàmmeel sorewul ku ci ku ko bugg a dimbale da ngay gaaw ku ko bëgg dimbali da ngay gaaw moomul jaan ci mbéy mi daf ñoo bëgg dimbali ci Macky Sall mu dimbali ñu mais nous on est preneur à 100 pour jël loolu moo tax ñu ñëw tey pour préparer lancement bi le 27 euh, août bi ci à la promenade de Thiessois te mouvement bi retraités yi moomuñu ko. c'est yi boo ci bu dee ñaar téeméeri nit retraités yi juróom-ñaar la ñu ci. Mm-hmm. li ci des yëpp ay mag la góor ak jigéen. boo ñii di waas jën ci àll bi ci géej bi ñii di jaay ngooñ ñii di dawal saret ñii di ow ay dàll waaw ñooñu boo ne ay retraité lañu du ñu retraité c'est des personnes du troisième âge ñooñu lañu boole ci mouvement bi pour fal Macky Sall en 2019 tey le premier tour merci jërëjëf julli ci yonent bi ay mag yu dëkk ci réew mi juddoo fi amee fi teraanga e xam li baax ak li bon yàgg lool ci réew mi ñun ñu am chance liggéey ba retraité mais am mag yoo xam ne yi liggéeyuñu waaye mag yi réew mi lañu te luy doxal réew mi lañu bëgg te bi ñu ko bi bi mouvement bi juddoo mouvement bi tax ñu daje fii tey juddoo ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp ndax plan émergent bi ñëpp la yóbbaale yamul rek ci ay retraité wala <laughs> ay nit administration bi réew mi ñëpp la yóbbaale parce que lii ñàkkoon ci réew mi lépp te nit ñi doon ko jàmbat mën naa la wax léegi fii ne la au minimum quatre-vingt pour cent réalisé wu na kooku ci reñu Macky la la réalisé kon ñun li nga xam ne mooy dugal mooy indi épanouissement suñuy njaboot suñuy mbokk képp ku ci taxaw dañu lay jàppale kenn woowuñu kenn forcé wuñu kenn neexaluñu au contraire fii ñu daje nii tey bi ñu jógee fii mbooloo mi fi daje yëpp toogukaay yi maa ko génn sans poche loué ko pour ñu toog ci te laaju ñu kenn dara kon dama ni kuy wax na nga waxal sa bopp te du ay retraité kese te dama ni secteur informel ñii jaay ñi ngi ci biir ñii béy ñi ngi ci biir ñii napp ñi ngi ci biir couche sociale yëpp a ngi ci biir. yan dëkk ñoo fi mi ngi fi. Louga mi ngi fi. Kaolack mi ngi fi. Daaru Muxti mi ngi fi. Dakar ci boppam yónnee nañu délégation ñu ngi fi. Ndar téléphoné nañu parce que ki waroon ñëw dafa am ngant Tambacounda téléphoné nañu ki waroon ñëw dafa am ngant parce que dafa sore te ñu nekk ci période mbéy mais ñoom ñëpp yónnee nañu même Matam nee nañu ils son à cœur ak ñun te itam mouvement bi bëgg nañu recevoir ñu en délégation ñu fekk ci leen ñu ngi ñuy xaar di préparer loolu donc ñun ñun la yàlla dogal xalaat bi bàyyi ko ci ñun ñu xalaat ne war na nañu daje bu ñu dajee sos kuréel boo xam ne kuréel boobu bu ñu fi jógee kenn ku ci nekk da ngay jàpp ne mouvement bi yaa ko sos yaa koy def yal na ci yàlla dugal loxo